yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi daa di woote bàyyi benn suba teel mu dem ba saba taxaw ci montagne bi ne waa Màkka cuuyu naa leen woo naa leen ñépp génn bi ñu génnee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne waa Quraysh yaa maachara Quraysh Quraysh mooy xeet bi yonent bi bokk lépp waa Quraysh ne sëmm ne ko naam anqiduu anfusakum min annaar fa inni laa ugni ankum min allahi shay'a yéen waa quraysh di waa màkka di samay mbokk jotee leen seen bopp ci safara jaamu leen yàlla mënaluma leen dara ci yàlla quraysh jeex tàkk kon yéen waa sénégal jot leen seen bopp ci yàlla kenn mënu leen a yóbbu àjjana kenn munu ko ku leen ko wax da leen di nax mënu ko yoru ko amul capacité bi yonent bi wax waa Quraysh kon yonent bi dégagé na toutes ses responsabilités ndax dugal àjjana ak dugal safara yoru ko moo tax mu wax bani kaab ibnu lu ay ne leen jot leen seen bopp xam nga lu tax laa tadiru waadiratan wisra uxra wa an laysa lil insani illa ma saa وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى برم بدي موكو القرآن نينا كن منت ينو بكار كن كن منت جرين كن كنك لنغا دف دينكو جس وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى يلا دنا لا فاي فاي بمات بودي لو باخ بون mbokk yi ñu ne falay mu ne déedéet mu woo ki mu gën a bëgg ci nit ñi muy daggati xolam fatima fatima bintu rasulillah nga xam ne yonent bi nee na hiya budaatun minni nee na fatima sama daggitu xol la waay waay kay yonent bu amoon àjjana ku ciy jiitu fatima am na mbokk yi xalaat leen yonent bi bu moomoon àjjana kuy jiitu fatima kon fatima ay hectares yi hectares yi hectares lañ koy daggal ndax moo koy donn ndax danaan alalu bayam la yonanti bi ne fatima bint muhammadin rasulillah salini min mali ma shiti salini min mali ma shiti ya fatima fatima ngi taxaw ci yonanti bi waxal mbok yeb gestu xol domam fatima ne ko fatima yow sama dom kuma ma jege ya ma gëna jege ne ko laaj ma ci sama alal lula neex laaj ma ci sama alal sama moomeel ndax yaa ma war a doon sali nii min maali ma shiti alalu àdduna bu dee kër jëlal bu dee ay gëlëm jëlal fatima ndax yaa ma war a doon mu ne ah mu ne ko waaye anqisi nafsaki min annaar ne ko xam nga lu tax àjjana moom ma fa dara aw ma fa dara safara moom ma fa dara aw ma fa dara munuma la faa ñaanal munuma la faa may man ak yow ñoo fa yem kon anqisi nafsaki min annaar fatima jotal sa bopp sabara waa ana ñi naan ku ànd ak diw dem àjjana fan lañu ko teg ku yaakaar diw dem àjjana fan lañu ko teg ku fottasul diw dem àjjana fan lañu ko teg ku jox diw addiya dem àjjana fan lañ ko teg yonent bi yàlla jox àjjana ñu koy njëkk a ubbil àjjana ci xeet yépp bu ñu dekkee yowmal qiyaam yonent yépp dañuy sujjóot rukk naan nafsi nafsi nafsi nafsi tiit lool من محمد صلى الله عليه وسلم موي جوك تخاو جوك تخاو رني الله اكبر انكو يا محمد سل تؤت وشفع تشفع تايدو بي سجولي نو يوننت ييب تيت يوننت بي دونغي سيغي تخاو بوغا كبر لان لاي واخ امتي يوننت بي فاطمه فاني لا املك لك ضرا ولا نفعا فاطمه منو مالا جيرين منو مالا لور ولا اغني عنك من الله شيئا fii rek buñ fi doyoon yemoon taxaw ci xutba bi ku am xel boo génnee xalaat war ngaa xam ne ay nax lañ la tëralal ndëgg sa rëx ku la yombalal àjjana dalay nax ku la ne bul jaamu yàlla boo ma soppee dem àjjana dalay nax ku la ni ku sopp diw dem àjjana dalay nax ku la ni ku topp diw dem àjjana ndax ka naan ku ko topp dem àjjana àjjana leeru ko moom xamul ndax moom dana dem yaakaar bu rafet rek la am mbokk yi يننت بلال غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها ين نيب سماي موك نين دانا كو جوكو كوما ورا سيتي دانا الفيتي كوما ورا وخال دانا وخاك واي اجانا موم مانك يينا فايم سونو ديكي موك اماتول فاذا نفق في الثور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون yàlla nee na bu ñu dekkee sant amul mbokk amul xarit amul waaw fa ida nufiqa fi suuri falaa ansaaba baynahum yàlla nee na bu ñu dekkee mbokk amul fami diw laa bokk jóob laa sant ngom laa sant sàll laa sant amul yowmal qiyaam suñu dekkee sant day riir mbokk day riir xam nga lu fa def nafsi nafsi xam nga lu fa taxaw doom dina xool yaay yaay faalewu ko nga xool bàyyi bàyyi faale wa luy sa dalil yawma yafirru almaru min axihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa baniih li kulli imri'in minhum yawma idin sha'nun ku dàq wax yàlla dëgg amul yàlla nee na bu ñu dekkee pappa amul yaay amul doom amul mbokk amul dara amul yawmal qiyaam dañuy dekki jigéen xool doomam bu mu doon nàmpal sànni ko وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه يلا نينا كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى بقي جانجلين القرآن القرآن موي جندي القرآن موي لونت إنغا خمني بوكو سولي كن من لنخ كن من تدخ سماين كن من laa nax jox ma أجانا بايل àjjana bayal ma dem àjjana maa la lu nu amul yowmal qiyaam ku ko fa am yaa leen mën kon nañu wax yéen a mën yonent yi bokk bu fekkee mën ngaa yóbbu ku la sopp ajjana bu fekkee mën ngaa yóbbu ku la bëgg ajjana bu fekkee mën ngaa yóbbu ku la yëkkati xaalis jox la ajjana bu fekkee mën ngaa yóbbu sa taalibe ajjana yonent yi de ñoom keccet leen ci mënuñ ko weddi nañ ko bañ nañ ko te mu a ci jiitu sallallahu alayhi wa ndax nee na mënta yóbbu doomam mbokk yi alquran dara diisu ci léeg-léeg na nga dégg ñu ne kii ni muy waaree daa metti loolu mooy injaar léeg-léeg nga dégg kii ni muy waaree daa sedd loolu mooy ibshaar kon mbokk yi nañu xam ni tabshir ak inzaar ñoo ànd ci woote bi ku newul ci dëgg du bëgg ku ko wax dëgg ku newul ci njub du bëgg ko wax njub waaye dëgg gii njub lii njubal yàlla la alquran la mbokk yi téere borom bi la ñun ñépp ñoo ci yem kenn moomu ko jagale ko ñii bàyyi ñii nañu ko dem jàng jéem koo xam mbooleem li ñu wax mi ngi ci alquran ku ci am loy weddi demal nga ubbi téré bi nga laaj ko dana la wax ne ah li de la yàlla wax soko ko mënta firi sétel kula neex mu firil lako sétel kula neex mu firil lako allahumma allahuma fi man hadayt